alhamdulilah eh, jërëjëf waa Rési di leen jaajëfal bu baax a baax eh, Baye Mbaye ñoo ngi santaat bu baax a baax de moom de mbokki taalibe yi biir réew mi bitim réew ñëpp ngi bëgg eh, ñii ngi envoyé message ndeysaan ñii ngi topp ci Facebook bi Lam Fall moo xam YouTube bi moo xam Facebook bi ñëpp ñu ngi koy topp ñu ngi bég bu baax euh, mboolem Touba itam ak njaareem ak li ko wër yëpp ñoom itam ñi ngi envoyé message ndeysaan di bég bu baax a baax li ma la wax léegi rek am na ci ñoo xam ne seeni maam réeroon nañ leen waaye tey lay commencé feeñ nag ndax am na ñoo xamante ne bii euh, tey li wax ci taarix di wax ci niñ bokkee ñu ngi koy topp bu baax a baax a baax euh, di bind ñu rawatina bindkat yi nag ku mel ne ay Doudou Mané Diouf ñoom ak nga xam ne ñoom moom <laughs> Baye Demba Sow mi ngi foofu ci Amérique waaye xam naa bu xoolee jotaay bi dana bég ndax ñoom dañuy bind taarix euh, te itam euh, euh, say kàddu da leen a ñor lool saa su nekk rek dañuy topp liggéey bi moo xam ci internet bi wala ci yenn jotaay yi di bëgg bu baax a baax nag di ziyaarewaat bu baax a baax mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi gis message yi ndeysaan ñuy bëgg bu baax di bëggee sunu bàyyi mbay ngiran waaye di ko ñaanal baax sans borom dal ko fa yàggal bu baax te dolli ko wér di ziar bu baax Cheikh Mahamadou Bachir moom sëñ ñu ngi koy ziar bu baax di ñaan suñu borom defal ko yàgg ak wér sëñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Soyibu moom te ñu ngi koy ziar bu baax di ñaan sunu borom du ziar mbokk groupe as yépp nag nga xam ñoom borom xam-xam yu mag ñoo fa nekk waaye di ziar baax sunu bàjjen soxna Bali Muntaxa xam naa ziar boobu moom ci loxol sëñ Mor Ngiraan laa koy teg mu jotali ñu ko mboolem euh, soxna si ak mboolem njaboot gi yépp di ziar baax sëñ Mamour Lo Gaydal ak mboolem ñi nga xamante ne bii ñooy lég ànd ak moom di ko taxaw ci liggéey bi Seydou si ndeysaan moom itam di murit di jàmbaar lool di ko baax euh, kon Baye Mbaye mën nañoo daal di war rek am na foo tolloon defe naa ci Eh, eh, taarixu Serigne Darou Assane Ndiaye romb nga ko léegi waaw waaye yaa ngi daa mel ne nag tàbbi woon nga ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak ni mu bokki réew mi mm. eh, mel na ni mbokkum sëñ sëñ Darou Assane la loolu moom indi nga ko taarix bi léegi mm. waaye mbokkum sëñ Daam Abdourahmane Lo la mbokkum Cheikh Mouhamadou Bachir la mm. kon Cheikh Ibrahima moom ñëpp la bokkal waaw ñëpp la <laughs> danaa ciy dégg nag gaynde ngonaan nee nañ seex Ibrahima moom moom benn lañ woon ci bokk Cheikh Déthialaw Seck waaw Ahmadou Rokhaya Fall ak Ndaak Fall mi mu bokkal ndey ak baay moo meññi waa cene ba sëñ cene ba tey waaw est-ce que moo meññi sëñ cene ba Amari Ndaak Seck waaw Amari Ndaak Amari Ndaak Ndaak ma ko jur waaw moo ko Ahmadou Rokhaya Fall mi du Cheikh Ibra ñoo bokk ndey ak baay tey est-ce que Cheikh Ibra mbokkam ñëpp a ne ba nee naa ne woon mooy Sénégal waaw mooy Sénégal Cheikh Ibra mooy Sénégal. mooy Sénégal. waaw ah, ay ci bismillah. Eh, maam Seynabou Ndiaye. Mhm. mooy wajuru Cheikh Ibra. Mhm. baayam Serigne Balla Fagé Ndiaye la tudd. Mhm. yaayam maam Soxna Balla Ndiaye. mu doon mbokkam ku askanoo Jolof. kon Cheikh Ibra dafa dàmbe. Kajoor ak Jolof ak Njaambur. ak Siin ak Saalum. waaye mu doon njëriñal kese boo demee ci mbirum sëñ Moussa Ka mhm. sëñ Moussa Ka mi ngi naan ma dellu wax leen lëf ci booti jébbalu mhm. Cheikh Ibra Fall moo ma ko wax moo ma ko wax waaw moo ma ko wax mhm. moo sébbalu ma dellu wax leen lëf ci booti jébbalu Cheikh Ibra moo ma ko wax moo jébbalu moo sébbalu Cheikh Ibra moo ma ne musaa ma ne Fall mu ne ma seen jant taxul nga di ko laal seen jant taxul nga di ko laal bari na kuy tok bamba tok nga di xol mu hall xol te yow gisoko mako xol jibuluna batin bo naa sebuluna jibuluna batin bo moy sebuluna naa bu tawé bol jekina nopuluna noppalu na alaaxiraat di noor nawet moy lolli bur gu bayul du meuna xam lum jalle mu delu ne ma delu wax len waxi Ibra Faal ci digam ak Bamba moy borom xaal moo ma ne na Bamba luma junni at wurna yalla bur buur te boobu yàlla bindigul maam aadama sàkkantumaa di bind sax doomu aadama dal di ne sayxu bamba déggub laa ñaar ba leer nga jollee asamaan foofu la jaar moo tax ba sayxu bamba dëkk njaareem leeram nga jolli wër ko ñu di ko yéem bésab keroog la sama ruugi ànd ak ruug sëriñ tubaa ba tey maarawe nag kon Cheikh Ibra mhm. eh, te loolu maam sëñ tay bi mu ngi tuddoon di sa maam hmm? waxoon na ko maam Cheikh maam sëñ tay bi mës nay bës Cheikh Ibra waaw di ko bës di ko bës ba yàgg Cheikh ko sëriñ mu ne ko faal mu ne ko Saaliwu fal sama rakk ji jitu dama fa sëñ bam ñetti junniy at ma door ko fa fek ñu am fa ñetti junniy at mu juroom ben junniy at ñu door tan adama mam maam tay ba ne ko ah, fa lol da yag na mu ne ko a ah, lolou yagut di adama biñ ko tene yagut hmm. adama mu ne ko ah, mu ne ko biñ ko ne euh, ma waxu wuti ñowanuk sa borom mhm. man Ibra ma waxu wuti ñowanuk sa borom mhm. ne ba may àgg ba may jub njoowaan nga mu seen sëñ Bamba jaaxaan ca kaw njoowaan nga ne ma yor suuf njoowaan nga seen sama rakk saaliwu tëdd ca suufu njoowaan nga ne ma bëgg a wàññi ko sëñ Bamba wakk ma mhm. wakk waaw ne ma ñëw mu ne ma feeñal ma ma feeñal la <laughs> moo tax mu ne boo fekkoon ku faatu nga jël xam fafton xobu fafton mhm. soolaale ko ku faatu dana dana texee ngir faaf faal gi mu tàmbalee faaf faaf gi faa faa gi mu rek faal gi fafton xam nga fafton faala tàmbalee foftal waaw mooy faftoon kon nu dellu siwaat ci mhm. ci Serigne Touba ne jógunu ci sax waaw ña nga ci lan ne rek ci lañ ne ba léegi euh. waaye ci nasab bi mhm. lañuy ñuy dañ koy tàmbalee tey Seydina Babacar Sadiq mi jëkk a gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi Serigne Touba la hmm. ak ñu bari nag waaw ah. Seydina Babacar Sadiq alayhi ridwanullahi taala al akbar mu jur Abdoulahi mhm. Mujur Muhammadul Fatah Mujur Abdul Hasis Mujur Talhata Talhata jur Asmar Asmar jur Ahmadou Nur, Ahmadou Nur Usman, Usman jur Ahmadu, Ahmadu jur eh, Abdul Samsam Abdul Samsam jur Ahmadul Miflal Ahmadul Miflal jur Abdul Yatim Abdul Yatim jur Muhammadul Fadl, Muhammadul Fadl jur Atim <coughs> Atim jur Abdul Khadir Abdul Khadir jur Mudu Nyang, Mudu Nyang jur Bekeri Nyang, Bekeri Nyang jur Muhammadul Lamin, Muhammadul Lamin jur Yat Manyang, yaat ma jur jur sam ma samba yaat ma ma samba yaat ma jur abdullahi <coughs> abdullahi jur atuman ñang atuman ñang moomu nag ñangeenu ngébbal la dekk mo jur soxna aram ñang mi meñ mama aram bakke nga xamne buñ dugon ci ak mama aram rek mhm. na doy sëkk ci bok hmm. waaw mama aram na am bis bo xamne mama mhm. eh, aram lañuy ñuy bis bi waaw mom lañuy waxtane mom rek lañuy waxtane mhm. nga xaye mom doy na sëkk sëkk ndax Sénégal gépp mën nañ ne maam ma aram la waaw. moom da dégg naa maam El Hadj Malick ñëpp fa la bokk. ñëpp ñëpp moom kay mane la kay moom kay <laughs> moom kenn di su daanaka mane la. Hmm. waaw maam ma aram bu ñu ko doon waxtaanee tey. dana doy sëkk. dana doy sëkk laa wax. ndax moom moo jur maam ma ma aram. soxna aram ñang mooy ndey maam ma aram maam ma maam xëyri la tudd. waaye dàkkental dafa yàgg. ci nit ñu weex. Hmm. moo tax ñu di ko dàkkental ci ndeyam rek ne ma. aram mhm. mii mu Mamadou gi rek lañ jël waaye daal di indi yaay ji mhm. mooy ma aram ñu ne ma aram waaye soxna aram ñang mu ko jur nag mhm. eh, eh, ak ak ak ma fente ñang ñoo bokk ndey ak baay bërgeel ma fente ñang moo jur soxna awa ñang mi nga xam ne moom la maam ma aram taaloo moom la maam ma aram jëkk a denc mooy ab aawoom ndax ba mu matee denc dañ ko ne nga dem sa kër nijaay sa nijaay dencal la mu jox ko nag soxna awañang ci la ibrahima awañang ëstu mbàkke awañang soxna mbàkke awañang xadi mbàkke awañang ñooñu waaw mm-hmm. kon ñaar ñooñu ñoo bokk ndey ak baay waaye ñoo wuuri ñang maami coro maa rooso ñoo bokk benn baay ak amadou maleem ñang mi jur yaat ma ñang mu jur ahmadou ñang mu jur ma ndumbe mu jur daanu ndumbe mu jur maam astawaalo mu jur soxna jaaratullaahi ak amina ñang nday soxna xujja mu jur soxna mati ñang mu jur soxna awa buso nday alhaaji falilu mbàkke moom sëñ tubaa ak faali ñang mu jur mara xàcc mu jur lawbe ture mu jur soxna absa mbàkke mu jur soxna faati sa way juru maam ceerno borom daru juróom benn ñii ñoo bokk benn baay <laughs> atumaan ñanga leen jur atumaan ñang moo jóge ci seydina ababacar euh, sadiq ak tafsir maxtaar kon juróom-ñaar lañ ak tafsir maxtaar ñang waaw ñoo bokk benn baay. nga ñëwaat ci Seyna Omar. Omar ibn Khattab. mu ñaareelu xalifa. rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu jur Aboubacrin mu jur Asim mu jur Ismaïla mu jur Abdoulaye mu jur Yusufa mu jur Muhammad mu jur Yaqub mu jur Asix mu jur Yahya mu jur Moussa mu jur Ousmane mu jur Abdoulaye mu jur Salih mu jur Bàcc Touré mu jur Njaase Njaase jur Texe Texe jur Unt untu jur demba demba jur ayib ayib jur samba ayib ak ngura ayib samba ayib moom noo taawloo Mariama Jóob teg bàlla maram teg ma ndumbe teg maxtaar ndumbe teg bindiw njaay teg bàlla bindiw njaay Mariama Jóob nag mu jur anta sàll mu jur faamata sow mu jur awa dikke kamara mu jur daanu sànqe mu jur ndumbe daanu mu jur maam astawaalo mu jur soxna jaara war jur xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa yaakaari jàmm <laughs> kon sëñ Tuubaa ba tey mi ngi foofu Seydina kon mi ngi ci abou bakkar sayna abou bakkar mi ngi ci Seydina Omar waaye mi ngi ci rasoulullah sallallahu alayhi wasallam itam nak ndax soxna jaara ku ne xamne ne sérif la waaw shaykhul khadim khadim rasoulullah sallallahu alayhi wasallam sallam cheikh man banba radiallahu anhu wa ummu sayyidatu tairatul mutaara mariam buso almasuratu bi jaara bintu sayyidil jalil momadou buso ibnu matabara buso ibnu amaat ibnu aliyin ibnu Ousmane ibnu Ibrahima ibnu Ismaïla ibnu Sakriya ibnu Ismaïla ibnu Souleymane ibnu Asan ibnu Ibrahima ibnu Abdoulaye ibnu Arouna ibnu Abdoulaye ibnu Mouhamad ابن عبد الفتاح ابن محمد ابن علي ابن بكار ابن محمد ابن ابي بكر ابن علي ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن محمد ابن محمد ابن عبد العزيز ابن عبد الخادر الجيلاني رضي الله عنه ابن موسى وابن عبد الله ابن يحيى سعيد ابن داوود ابن موسى الجواني ابن الحسن المهدي ابن الحسن المصنع ابن سبت الفاطمه وام فاتمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كون سخنا جاره با سخنا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم càlla la ngaa gu dara dugul waaye nga demaat ci ñëwaat ci diggante bi ma jëkkoon a wax mhm. nga ñëwaat ci soxna suñuy wax mu jigéen taal ndaag ndax mooy seen maam mhm. bu jógee ci euh, buur Sintraasa mhm. soxna suñuy wax mu jigéen taal ndaag bokk ci askanu diine ci Fuuta Tooro moo jur Alima Touré ak Kura Touré Alima Touré moo jur Astu Sekk ak Mariama Sekk ak Ndumbe Sekk Mariama sekk moo jur sëñ Daam Abdourahmane Lo soxna Astu Seck jur soxna Ndiaye Sourang eh, ak sëriñ Moodu Amina Sourang soxna Ndiaye Sourang ñëw kër Maam Mor Jaara am fa sëriñ Mor soxna taaw Maam Mor Jaara Mbàkke soxna Kura Touré jur mbiru Kura ma jaxate ñu jox ko Amadou Yàlla moom saa xewer faat ba mu am ci roq ya mbiru ak yàlla mbiru ak joor mbiru roq ya mbiru moo jur wàcciit mu jur soxna ma mu jur sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma yàlla mbiru jur xari jëng mu jur soxna Fatima Dubaam mu jur sëñ Basiiru Mbàkke ah joor mbiru moo jur Mamour Dior mu jur Demba Fall mu jur Soxna faal ñu jox ko sëñ Aliou Gadiaga ni yaayi sëñ Mor bay Siise ca njaareem sama sëriñ moom fa sëriñ Xaadim Gadiaga waaye aminata yàlla mm. ñu jox ko sëñ ko ki ñaga isa moom yàlla xuja kumba sëy ma maam ji juddoo woon ca bàmmeel ba mu am ca Mamadu aminata yàlla ak Samba Aminata yàlla ak Matar Xari Aminata yàlla ak Penda Buyo Aminata yàlla Marema Njaga Aminata yàlla Xari Maam Njaga Aminata yàlla Faaloo Njaga Aminata yàlla Ndaag Jóob Aminata yàlla mm-hmm. Samba Aminata mu jur Penda Buyo Jóob ñu jox ko sëriñ Mbàkke Kajoor mu am fa sëriñ Omar Fall Mbàkke ak sëriñ Omar Mbàkke Gelongal Pend Buyo Bintu Jaaga Isa moo jur Ibra Pend Buyo Ba ak soxna Jaxate way juru sëriñ Aadi Touré ca Faas Ibra Penda Buyo jur Sadio Ba mu jur soxna Faati Fall ñu jox ko maam Thierno Ibra Faati borom Daaru mu am fa seen ak soxna Faat no mi nga xam ne Cheikh Moustapha Al Karim lañ ko njëkk jox ci la amoon sëñ Daba Mbàkke soxna Daba Mbàkke gannaaw ko ñu jox ko sëñ Basiiru Mbàkke ci la am soxna maam Ami Mbàkke Ibra Pend Buyo ba tey moo jur Pend Buyo ba ñu jox ko borom Touba xaadim rasulullahi salaa sallam yaakaari jàmm ñi mu am fa soxna Faati Mbàkke bintu xaadim rasul ñu jox ko Serigne Omar Mbàkke mu am ci Serigne Moodu Mbàkke gelongal euh, kon noonu ba tey noonu la xari maam moo jur soxna Aminata loo ak aali xarim maam ak yaaba xarim maam soxna Aminata Lo mooy way jur Cheikh Moussa al Karim ak Serigne Baara Mbacke aali maam jur Matar aale loo ak soxna Faati aale mi jur Serigne Abdoul Assis Mbacke moom Serigne Baara Mbacke yaaba jur xalimaam mu jur sëñ Aliyu Mbàkke mu jur sëriñ Moustapha al Karim ba tey yaaba mu jur seex yaaba Jóob mu jur Samba Yàlla faaloo Njaga mu jur Mataar faaloo mu jur Mariama Njaga mu jur soxna Ndaama Jóob mu jur soxna Binta Mbàkke bintu sëriñ Mouhamadou Mourtala Mbàkke moom sëriñ Tuubaa mas Amba Gadd ak Omar Ndaak ak Madu Ndaak ak Maxtaar Ndaak ak Maxtaar Anta ak soxna Isa Jéey ak Penda Buyo ñii ñoo bokk ndey ak baay maxtaar dumbe moo jur nun benn buyo mu jur sàmb sàmba anta ceebo ak maxtaar anta ceebo ma sàmba anta ceebo mu jur mor xuja kumba mor xuja kumba moo jur ma sàmba gàdd ak amar ndaak ak madu ndaak ak maxtaar ndaak ak maxtaar anta ak soxna ese jeey waxoon naa ko ak pend buyo ak anta yara ma sàmba gàdd moo jur sëriñ mor jàndam mu jur soxna loo jóob mu jur sëñ mbàkke soxna loo amar ndaak mu jur baay seex maxtaar joob ca ngumba ak baay omar jóob ca koobe kooba ak baay Mouhamadou Diop Yedali mu dun ndaak mu jur Baye Mor Diop Daaru Nahim ak baay Bàcc ak Serigne Diop fat sey Maxtaar ndaak ay doomam ña nga Banjul Matar Anta moo jur Moustapha Diop Safoor ak Fallou Diop ak Serigne Diop ak Bassirou Diop ak soxna Faati Xari Diop nday Serigne Modou Faati Xari ak soxna Mariama jóob mi jur soxna màggat gay kër sëñ soay bu Mbàkke moom ah. sëriñ Touba soxna Issa Dieye moo jur sëñ Massamba Mbàkke ak Mor Issa Diop hmm. Thilmakha soxna Issa Diop ba tey moo jur sëñ Modou Issa ak sëriñ Ibra ak sëriñ Amsatou Lo sëñ Abdou Karim Lo ñooñu daam xuj a jëbu moom gay deel xuj a kumba sëy mooy seen bàyyi te kat gaydeel hmm. moo jur masata anta mbisin mu jur sëñ Mor Absa Lo hmm. waaye mu jur sëñ daam Absa euh, euh, euh, Lo waaye saa xewet Fatma doq yi mbiru soxna faat Fatma sëriñ Cheikh Mbacke saa xewet Fatma yela mbiru xari jang soxna fadi maam Fatima du maam sëriñ Basiru Mbacke saa xewet Fatma aminta yàlla xari maam soxna aminta loo Cheikh Moustapha al Karim euh, euh, saa xewet Fatma ak sëñ Baara saa xewet Fatma ndaak ma samba gàdd Fatima Samba Fat sàmba xari Jóob sëñ Cheikh Mbacke Darou Rahman moom sëñ Abdou Borom dër bi yàlla na yàlla dolli ay leeram saa xewet Fatma ndaak Jóob ma Masamba Gàdd Mor Jàndam soxna Loo Jóob sëñ Mbàkke soxna Loo saa xewar faat ba Madu Yàlla Samba Maram Xaye Silla ma paate Aram Silla Sumbul Ndaak Faal Libaas soxna Jëng Silla soxna Mariama Jaxate sëñ Abdul Ahad Mbàkke ak ay Suaybu Mbàkke ba tey soxna Faati Jaxate ak sëriñ Saalihu saa xewar faat ba Madu Yàlla bu Jóob alburi Seynabu Sidi Ndiaye saa xewer faat ba madu yàlla sàmba maram xaye silla ma baate aram ca ñaxal sëñ ma ñaaw silla jur soxna xadi silla mu jur sëñ abdul hakim mu baax mu tedd ma moom sëñ basiiru mbàkke sëñ ma ñaaw silla soxna jang soxna ma jaxate sëñ abdul ahad ak sëriñ Soaybu sëriñ Mañaaw Silla soxna Jëng Silla soxna Faat Jaxate sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Touba sëriñ Maxtaar sëriñ Mañaaw Silla sëriñ soxna Asta Silla sëriñ Siidi Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad Mbàkke sëriñ Mañaaw Silla soxna Aram Silla sëriñ Mamundu Jaxate moom sëriñ Mbàkke Jaxate sëriñ Mañaaw Silla soxna Faati Silla soxna Mominatu Mbàkke ak sëriñ Muhammadu ak soxna Maskuratu ñu njabootu sëriñ Touba sëriñ Mañaaw Silla soxna Joor Kase Silla moo dem tey ba Dakar am fa soxna Xari Mbar ak soxna Xari Daaru soxna Xari Mbar mooy wajuru sëriñ Abdou Samad Abdoulahat Mbàkke moom Serigne soo soxna xarit daaru mooy waju soxna may mënutu Mbàkke bintu sayxul xaddim kon nii la ñu demee nga ñëwaat ci ay meeru tàkko caam ak yére tàkko caam ñoo bokk day ak bàyyi ay meeru tàkko caam moo jur kala gala moo jur kala xumma moo jur kala xumma mu jur makara jaxate ñu jox ko soxna daaro xuja kumba say mu am ci musa daaro jaxate yére tàkko caam ñu jox ko kumbam sëgg jéey mu am fa alsaan gumba mu jur baaba xëri njaay mu jur njàmme baaba ak masata baaba njàmme baaba ñu jox ko soxna mbàkke ma xaram mu am ci xaali amar soxna mbàkke ak maru gorel soxna mbàkke ak ibrahima soxna mbàkke ak soxna absa jaxate soxna Mbàkke soxna Absa jaxate la ñu dénk Musa Daaro jaxate mu am fa maam xaali ma jaxate kala fóori ju tedd ju réy joojee woon ba tey xaali amar soxna Mbàkke mi bokk ak soxna Absa jaxate nday ak baay mu jur Asan jaxate mu jur xali gumba ñu jox ko ma xuja faafaal mu am ca soxna Binta jaxate ñu jox ko Serigne Bassirou Mbacke mu am ca seex mu am ca euh, sëñ Moussa Mbacke moom Serigne Bassirou Mbacke ak ak sëñ Mountakha Mbacke mii ak sëñ sëñ est-ce eh, que ak sëñ Muntaxa ak sëñ mhm. Mhm. baaba mhm. moo jëloon lingeer Asta Diop mook soxna Mbàkke ma aram ñoo bokk doon wujje ci kër njàmme baaba lingeer asta am fa ab sa jaxate moo noonu ak masata Asta Diop ab sa jaxate moo noonu ñu dénk ko may sa tende joor sàmb mu am fa ngóone latir ak lingeer debbo ngóone latir mu jur lat joor ngóone latir demb sukka moo jur sàmba yaaye masata asta jóob moo jur yumbur jaxate yumbur jaxate jur rëkki mu jur lingéer bii géngoone mu jur kumba mbayaar mu jur siidi jóob mu ñëw ci masata baaba mi bokk ak njàmme baaba ndey ak baay masata baaba mu jur Amadou Kare Jaane mu jur Masata Binta Dun Masata Binta Dun nag mu jur ma xuja faafaal ba tey mu jur soxna Binta Jaxate mu jur sëñ Moustapha Basiiru ak i rakkam te ba tey Masata Binta Dun mu jur Ahmadou Asta Jaxate ñu jox ko soxna Jeng Sill mu am fa sëriñ Amsatu Jaxate ak sëriñ Abdourahmane Jaxate ak sëriñ Balla Jaxate ak sëriñ Assane Jaxate ak soxna Faati Jaxate ak soxna Marema Jaxate ak sëriñ Mbàkke Jaxate ak soxna Astu Jaxate ma ñëw ci wetoog soxna Jeng Sill way juru sëriñ Mbàkke Jaxate soxna Kumba Saadi Siise moo jógee Njooñig ba tey ca sama sëriñ ba di sëñ Mor Mbaye Cissé fala soxna Kumba Saadi Cissé jóge dem njooñig am fa Binta Gajaga Binta Gajaga dem demeen am fa baree maree ba jaxate maree ma jaxate dem kër libaas am fa sëriñ Maxtaar maree ma Silla ak sëriñ ma ñaaw Silla ak soxna Jëng Silla ak soxna Faatoro Silla soxna Jëng Silla <coughs> dem Mewndu kër sëñ Modou Asta Jaxate am fa sëriñ Amsatu Jaxate ba tey ak sëriñ Abdourahmane Jaxate ak soxna Faati Jaxate ak sëriñ Balla Jaxate ak soxna Marema Jaxate ak sëriñ Alsaan Jaxate ak soxna Astumbeet Jaxate ak sëriñ Mbàkke Jaxate soxna Faati Jaxate way juru sëriñ Saaliwu Mbàkke moom sëriñ Tuubaa ak sëriñ Abdou Xudoos Mbàkke ak sëriñ Abdou Baaxi Mbàkke ak soxna Tairatu Mbàkke ñooñu dañoo teel a dem waaye ñoo sëriñ Saaliwu ñoo bokk ndey ak baay soxna Marema Jaxate am na sëriñ Abdoulahat waaye am na sëñ bu ci rakk ak sëñ Abdul Baaxi ak soxna Isatu Mbàkke ñoom itam dañoo teel a dem nga ñëwaat ci xawa mbaay ak jaara mbaay mhm. ay seex lañu xawa mbaay awa mbaay ak jaara mbaay ak jaara mbaay ay seex lañu mhm. ñaari seex ñu jigéen lañ mhm. awa mbaay ak jaara mbaay awa mbaay moo jur ma busu ma busa xawa mbaay mu jur soxna jaara hmm? waaw jaara mbaay jur soxna géy mu jur maam Balla jatara mu jur maam Mor Asta jatara moo tax ñoom ñooy ilimaan yi euh, Mamor jaara te soo delluwaatee ci Ahmadou Soxna Bousso da nga fekk Ahmadou Soxna Bousso moo jur tafsir Mbàkke Ndumbe mu jur asta Seynabu mu jur maam asta Jatara bàyyi sëñ Jatara waaye Ahmadou Soxna Bousso moom ba tey moo jur maam asta Waalo mu jur Soxna Jaara Bousso mu jur Seexu Xadim ba tey kon gis nga kooku foofu foofa di waaye nga ñëwaat ca maam ma aram mi nga xam ne moo moo juróon ahmad soxna Bousso ak sayid soxna Bousso ñoom ñaara bokk ndey ak baay sayid soxna Bousso booy tey moo jur sëy na bu baati mbàkke sëy na bu baati jur xasta na bu mbàkke mu jur maam moor asta jatara bàyyi sañ jatara kon foofu ñoom ñëpp kenn lañu moo tax ma ne sayer jaane moo sañc njaane dara faa kumba moo sanc ci la dara maan ma moo sanc siin ma kumba Balla Touré moo sanc lappe laykan moo sanc siin laykan mayib asta ndëri moo sanc kokki mayib baaba xëri njaay moo sanc xelkoom mutu fa moo sanc màkka Touré mataar naar moo sanc ñoom re ma yoroon ndaag moo sanc ngiig faal maa kumba moo sanc belel bëkkër anta moo sanc kebe ndëkkët ndëri kumba faal moo sanc kalasaan njaay kodde anta faaruma ca Louga baara dikke moo sañ ci siin ak baara njëga fatim moo sañ ci njaayu baar baara anta bàcc moo sañ ci jëmmooy sayar maram moo sañ ci njare sayar sayar galaay moo sañ ci njëbu moo sañ ci jëbu moo sañ ci ngen sëy siré xuja kumba moo sañ ci daam siré saa xewer faatma moo sanc ci cilmaxa ma sàmba faa xuja moo sañ ci deqale ñu ñëpp nag ñii ñëpp nag maxtaar dubee leen jàngal alxuraan ba ñu mokkal mu jàngal leen xam-xam nga ñëw ci wetuk curóŋ yéen mhm. sëñ maxtaar suróŋ mhm. moo ñëw jóge jolof mhm. moo jur daam moo jur moor suróŋ ak sëriñ yuusu ak ma suróŋ ak faati suróŋ sëriñ moor suróŋ moo jur ñii sëñ maxtaar suróŋ ak ma suróŋ suróŋ ak xadi suróŋ sëñ maxtaar suróŋ moo jur yuusufa suróŋ Yuusufa Surang ju moo jur Mamar Surang Mamar yor daari kaamil ci njaarim bi sëñ Tuubaa ñëwee njaarim mhm. daari ka ko yor mooy Mamar Sëri Mamar Surang mhm. Yuusufa Surang ay baayam Mor Faambay ak ma Surang Faambay ma Surang Faambay mu jur Baraan Anta Kura Surang ak Moor Anta Kura ak Faati Anta Kura ak Xadi Anta Kebe Jaara ak Moodu Jaara ak Faati Jaara ak Màggat Jaara sëriñ yuusu surang ñëw ceroo ngeen daqaar fab suxna mbiru jeng am ca moor mbiru ak ma surang mbiru ak xaali mbiru ak amadu mbiru ak roq yo mbiru ak aminatu surang ak mati surang sëriñ moor mbiru moo mataar surang daam ak ma surang seel ñaan ak sëriñ Fallou soxna jigal ma surang seel ñaan xam nga ne moo àndoon ak Cheikh Moustapha di fondement ah, jumaay Touba loolu daj na ko ci dam na France ay yooni yoon di lijjanti kayit yi ba lépp sotti kon um, kooku muy ma surang seel ñaan ak sëriñ Fallou soxna jigal hmm. ak aale soxna jigal ak Mamour soxna jigal hmm. soxna jigal ak sërif surang ak soxna Faati surang ak soxna Xujja surang soxna Bousso surang ak soxna Faati surang ak soxna Mati surang ma surang mbiru no doom benn doom la mooy bàyyi abdu surang xaali surang xaali mbiru surang moo jur sëriñ Mor Anta Surang ak El Hadj Mamour ak ma Surang Anta ak El Hadj Malick ak sëriñ Daam Surang ak sëriñ Youssou Surang ak Soxna Dieng Surang ak Mati Surang ak Amina Khadi yaayi sëriñ Touré Fental ak Soxna Oumy Surang ak Soxna Faati Surang yaayi sëriñ Baaji Surang Amadou Mbiru moo jur sëriñ Mor Surang Lukaar Mhm. jàngal na mag ñu bari sëñ Mor Sourang Lukaar jàngal na mag ñu bari sëñ ma Lamine Diop daggana ci la bokk ah. ak ma Sourang Fati roq ye mbiru mhm. xamuma ay ay doomam moom mhm. amina Sourang dem tay ba daqaar dem tay ba sill am fa bald amina ak faylu Amina Sill soxna Mati Sourang dem bopp ca wetu ñaaxeen ci kër Serigne Mor Silla am fa Muudu Mbay Silla ak Serigne Mbay Silla ak Serigne Mati Silla sëriñ ma sura Muujur Mataar sura ak Saaba sura Surang Faati Surang dem siin ci kër maam dem ba bunna si najaay baay maami maam Alaaji Malik si am fa Njaga Fatim si ak Xari Fatim si Xari Fatim si dem bu Euh, kër sëñ Bousso bi mi nga xaye mook soxna Jaara Bousso bokk day ak baay am fa soxna Daaru Bousso ak soxna Yaasin Bousso soxna Daaru Bousso de de de soxna ba Daaru Bousso am fa Serigne Thier Serigne Daaru Bousso dellu Bousso bi am fa Serigne Thierno Bousso Serigne Thierno Bousso ñu naan ko Thierno Daaru Bousso soxna Yaasin Bousso dem kër sëñ Afe Mbàkke am fa Serigne Xaas Mbàkke borom xaas kooku mooy turangeen <laughs> nga ñëwaat ci daam isa loo mhm. moo di ko soxna Fatimatu ay dara mhm. am ca maxtaar daam ak amarum daam ak maxtaar mhm. maxtaar nag moo jur demba maxtaar mu jur aale demba ak njuga demba ak mbërgu demba ak njaay demba aale selemba demb demba binta maxtaar kon <laughs> mooy ka juddoo woon ca bàmmel ba <laughs> ah Sénéba Gaye damay dégg ñu ko tudd lu bari moom waaw Sénéba Euh, buur Siin waagaan fay mhm. ca siin mhm. moo amoon doom ji tudd ñi laan fay mhm. ñi fay ba muy judd mu judduwaale ay bëñ ree ju neex la liir bi judduwaale leer liir boo xam ne kum ree nga ngeb bi mu demee nag ba mat sëkk ñi ko war a denc ñemewuñ ko ñu gaafal ko tudde ko xon faaf séréer te doomi baadol yi ñemewuñ caa wax ndax doomi buur la waaye nag maam musa ñolle mhm. moo doon ab sëriñam maam Moussa Gaye naan ko maam Moussa ñolle Gaye mhm. fekk na mooy sëriñu waagaan fay mhm. maam Moussa ñëw fa nag ba mu bëggee dellu <coughs> buur siin waagaan ne ko bëggoon naa nu waxtaan de sëriñ bi ndax sama doom ji gis nga ko mi ngi rafet bu mel ni jinne waaye doomi buur yi ko war a jël gaafal nañ ko te baadoole yi ñemewuñ ko ñemewuñ koo tudd ma bëgg nag yow mi dim sëriñ ma may la ko maam Moussa gay nangul ko ko mu may ko ko eh, mu am ca benn doom muy Selma gay muy doom bu jigéen Selma Gaye moomee mata dem si kër ñu jox ko aaleloo mu ëmb ba am juróom-ñeenti weer ñu naan tey mu am doom suba mu am doom yàlla moom ko mu faatu te boobu bokkut ak léegi bu doon léegi docteur yi xotti biir bi jël doom ja ndax doom jaa ngi wadd ci biir bi waaye ndey ji faatu na mhm. waaye dañ noonu lañ ko suulaaleeg do ak ak mhm. ndeke doom ji juddu na ci biir bàmmeel bi yàlla dogal waa ju baax ju mel ne sëñ Mamour Ndaw <laughs> dem di leen gane ji bi mu duggee juubee dëkk bi tolloog armel yi mu dégg ab liir di jooy ci biir armel yi mhm. sëñ Mamour Ndaw ne ah waaw ndax damay waaru loolu da jooyi liir la ci biirum armel daal di jàdd jugg ci armel yi ba tiim armel bi liir biy jooyee Mamour damm ñax mépp di doxe gannaaw di damm ñax mi ngir bañ na bu fi mu réer ko wut ci ay xamtu ba dog yoon wa ba mu àggee ci dëkk ba ba borom dëkk ba dalal ko ba noppi mu ne ko damaa bëggoon nag nga wax waa dëkk bi ñu ànd dem ci armel yi ndax man kat bi may dëkk bi bi ma tolloog armel yi ab liir na doon jooy ci armel yi mhm. te bu pel ñu yóbbaale ko ndax ñu mën ko waxé sét ba xam loolu lu mu doon dëkk bëpp wa dal daldi and ak suñ maamur gan gi ñu dal and mm-hmm. bañ ak sé muy dox ba tim armée bi né armée bi la li bi doon joy ñu né armée li moy armée lu Sénébagay té bañ ko fi denc da ëmb ba mm-hmm. tollu ci juroom ñeenti wër mu né kon nañ gas mm-hmm. ñuy gas di gas di gas ba nga xam ne la ci dess ay loxo mën na ko jël ñu si jël loxo di wàq ba jot lire bi ñu fekk jaan ñu am xulol jox ko geeram di nampal moo tax ñoom ñiy sant lóor dëgg ku ci gane àddina jaan ji dana ñëw ci yow hmm? dana dugg si ci néeg bi su ndey ji ñomee toog su ñomee wut faawu jaan ji dana li yéeg ci lal bi wër liir bi door a dem hmm. léegi nag ñu dal di jël liir ba muy liir bu góor ñu maasalewaat suul yaay ja dem jaarale ko ci gàttal fi góor war a jaar fépp jàng alxuraan teel a mën alxuraan lool di jàng xam-xam ci biir njàngam xam-xamam la dem Saloum Dramé dimb fekk fa maamu lonkaan Dramé di góor gu bari xam-xam mm-hmm. mu nekk fa di jàng ci moom ba ngacc xam-xam bu góor ga ba mu jeex takk te mm-hmm. la ko tàggu nag ne ko damaa bëgg a dem nag léegi jàngale ji nag ginnaaw li ma doon wut lépp am naa ko am naa alxuraan am naa xam-xam léegi mm-hmm. sam ko daaraama dese rek di di xam le may itam maamu lonkaan ne ko waaw léegi na maam nga may ma ndax dañ maa dig soxna bu soxna si ñëwé bañ gané ko ba nopi ma gungé la bi jënti la ñaanal la nga dem sant na la gërëm na la mo dal di tok bam togué ab diir lu mat ñaar fukki fan maamu lonkan woko ko mu ñëw mu ne ko bu yeboo nga waaj defar say bagage ma di ma ma bu jëndi la ndax gan gi dootu mëna ñëw ndax lañ ma laaj lo xey awmako mhm. kon du mëna ñëw ren déwén rek laay koy mën a àggale waaye ren dootu mën a ñëw mu ne ko luñ la laaj mhm. mu ne ko am jaam lañ ma laaj ne faaw ma jox leen ab jaam ndaw si dootu sëy si te aw ma jaam dencu ma jaam te dencu ma njëg yi déwén nag su ma génne li mën a jënd mhm. ab jaam su ma génnee ci sama mbay mhm. jox leen <clears throat> maam Mor Allé ne ko jox ma leen ma doon seen ab jaam di leen liggéeyal ba déwén ba nga mën a am ab jaam jox leen mu ñibbu si mënta yàq ci sa ab juddu dara Mamu lonkaan ne ko lolou duma ko def xalaatuma ko mu ne ko moy mom ngay def le man dimatuma jox ma len ma dem soxna ci sey ci mu dem ko dikusu suuf mu ne ko lolou ngay def de lolou du yak sa juddu sama juddu bi dara munu ko yak ah maamu mu ju joxe ko soxna ci sey ci mu nek fa di len liggeyel ba ci deben sa bañ génni ko ba jaay mbay tere taxaw bañ jaay mbar ba ki mu jëndab joxe mu ñibusi mu ñew nak waaj mu ne ko nak defal nga ma lo xey xawma lan la lay jox mhm. ma gone na am waaye mat naa am mat naa dem kër. Mhm. kon dama la koy may. daal di koy may eh, eh, doomam soxna Khoudia Dramé. Mhm. di doomi maamu lonkaan Dramé daal di koy may soxna Khoudia Dramé. Mhm. Eh, bi ku ko maamu lonkaan Dramé mayee ca am. Maxtaar Khoudia Dramé. ak Balla Khoudia Dramé ak Mbargaan Khoudia Dramé. ñooñu ñooy maami sëñ Siré Lo ci sànna ñu koy topp ba ca ba ca ñoom mhm. waaw maam aale dem mbari jàmm siise ñu jox ko soxna njaaye siise mhm. mu dem ñaareelam mhm. waaye amu fa doom maam awraan dem xaafi lëy ñu jox ko balxiis lëy mu am ca balla xiis ak maaloo balxiis maam aale dem bayti ñu jox ko soxna awa njaay mu am ca faaloo awa njaay benn doom moor maam maam moor aale dugg néeg li mag ñi daa wax dugg néeg dugg néeg nag mooy koo xam ne daanaka sa téeméeri at de bu mat nga xaye xameetoo guddeeg bëccëg guddi gu ne ñu defe ne asamaan bu la sete bëccëg bu ne ñu defee ne balaa jënta so nga faatu mm-hmm. booba foofu la àgg àgg mm-hmm. nga xaye néegam ku bëgg euh, sawara këram ngay dem néegam ngay dem tibb fa mu tëdd rek la tëdd mm-hmm. ah, sëñ ngeen sëy nag ci mom la jànge won bës mu xëy ne day seeti sëriñam bobu ko jàngaloon di Mor ali bam mu bu yandu fa ba ngor mu ñibbi bam mu ngeen sey mu dajalé ak njabotam doom ak soxna yépp né leen man dé sama sëriñ bi ma seeti di sëriñ Mor ali niñ défé né ni lay bëgg faato dédé déma guddé ndax alcorane ji dégg muy rii ca dënnam ba gudd fenn yeen sama njabot gu jigéen gi ku ci nangu woon danaa la fa yobbu nga yoral mako Mhm. soxna xo ñu ko mbësay ne ko man bàyyi boo ma fa yóbboo ma toog fa man koo ma jox ma nekk ak moom bàyyi mel ne ku tiit ne ko nga ne lan mu ne ko boo ma fa yóbboo ma ma ma toog waaw mu ne ko kon bisimilah mu daal di koy waajal yóbbu ko mhm. mu nekk fa ba mu demee asamaan seet mu ne nañ ma woon dàgga ji ndax man liggéey ma fi indi ñu woon ko dàgga ja mu daal di dem lim soxla ci dugub lépp mu mbojj ko ba mbojj dugubam ñëw daal di laaj fu ñuy sippoo ji xam nga léegi lañuy ñuy jënde soow xaalis waaye bu njëkk dañuy sippu dugub ngay yóbbu sàmm dëgg daawut bay ci soow mi lay dund ci lay am dugub soow la ñuy jëndante ak ak ak ak pepp mhm. mhm. waaw mu daal dem sipp ji la mu soxla ci soow mu jox ko la mu soxla ci diwu ñor la mu soxla ci dax lépp mu jënd ko mhm. daldi ñëw soq wal ci njël asamaan set mu daldi àbbu peel di fëgg lal bi nga xam ne mooy lal bi ci gannaaw néeg góor gi nga xay fi la góor gi daan féexoo féexloo ca ca ca ca ca ca gannaaw néeg ba waaw fa muy féexloo mu fëgg lal ba defar ko ba kii mu di ñëw meeb góor gi ak ñaari loxoom daldi koy yóbbu tëral tëral tëral ko ca lal booba daal di koy summi diw ko diw yaram yépp diwu dax mhm. daal di koy tëral sàng ko tuuti daal di koy tëral foofa mhm. daal di ñëw nag ub bunt bi féeteeg pénc mi mhm. daal di gemb moom soxna si xam nga jànq yu njëkk yee dañ daan mat waaw waaw moom waxamaa ne muñ ma sa songool daaneel la boo sàgganee waaw daal di nga am peelam di leeñ néeg bi di gas ba kan mi wann ko mu bale mboolem néeg bi li ci ne woon lépp ci tilim defar réew mi feug ko gi defar defar defar lepp dal ci gàttal defar lemi defar ba ne bi melat ne lu yes lepp mo defar ko bamba mu noppé ni fekk na naaju ceweer li duguna na góor gi ak euh, diw gi dakh gi di won yaram bi mhm. mu toyal tangal am ndox bam xawa nugu mu mhm. dal di toyal morso bi nak diko ko bomb ci yaramu góor gi lu meuna dañ ci tilim ji ndax ko xam nga am nga nangami at ken sëngu la wo mhm. muy dindi tilim ji li ci meuna dañ bala ci mëna dañ dañ mu daldi di ruy am ruyamam jital ay daxam ak karutem ak yoyu daldi di sukk ci suuf jël gor gi bopam tek ci lo diko di non la koy top di ragal di ragal ba gor gi mëna diju wëru ci mom mm-hmm. muy ragal di ragal ba gurgi gi jafandu ci mom muy doxantok mom ci bir mm-hmm. mu di waragal ragal ak mom ba muy mëna a mom ci wanawi mm-hmm. mu ko ragal ba gor gi amaat doole ñeen fukki gor waaw tolluwaat ci ñeen fukki atam mel ni góor gu toll ci sa ñeen fukki at mhm. nga xaye am na fajar goo xaye daa dem ci jàkk ja nodd ba mu noddee mhm. la tàmbalee njare goog seex Ibra Fall waaw ba jàpp foofu fépp tund wépp dañ ne su doon ba Mor Ali di dund ñu ne ki nodd fajar bii mhm. no moom salaatu xayru néew na mu gën dégg moom képp moo ko daan man mu am ci juróom-ñetti doom ak soxna si waaw moom la ñuy wax yàlla ku njëkkumba sëy xuja kumba sëy mhm. gaydee xuja kumba sëy mhm. daaro xuja kumba sëy maam jaañ xuja kumba sëy anta sekk xuja kumba sëy mhm. faaloo xuja kumba sëy juróom-ñetti doom lañ ñetti doom yu góor ak juróomi doom yu jigéen juróomi doom yu jigéen yi nag ci lay jël kenn xanaa foofu lay taxawe yàlla xuja kumba sëy lañ jox sax xawat Fatma <laughs> mu am ci Amadou yàlla ak Aminata yàlla Amadou yàlla jël mbiru Koura Touré am ci doq mbiru ak yere mbiru ak joor aminata yàlla ju jox ko sëñ kokki njaga sax mu am ci muudu aminata ak samba aminata ak penn buyoog ndaak ak marema ak xarimaam ak njaga ak faaloo kon ñooñu nag juróom-ñetti doom yooyu man naa ne ñooy Sénégal bu ñu ko doon uh, lim di ko tas xam naa du ñàkk nag beneen bis boo xam ne <laughs> juróom-ñetti doom yooyu lañuy la ñuy tas xam naa li ma diggee nag bari na <laughs> lool ndax maa ngi diggee woon ma aram ba noppi <laughs> léegi waaye nag lépp insha allahu nañ ko dénk moom Cheikh Ibrahima Fall waaw mbay borom jotaay bi ak sëñ Mor Mbaye Cissé waaye dama bëggoon Baye Mbaye hmm. dama bëggoon nga may ma tuuti rek dama bëggoon waa ñu afficher ma numéro bii ci ecran bi. da bëgg. damaa bëgg waa Régie bi ñi ñi may déglu ñu may teewlu ñoom suñu ab doog gars hmm. ñu afficher ma numéro bii ci écran bi numéro bii nag numéro Baye mbay Ngiraan la damaa bëgg bala muy jóge fii ci jotaay bi ñun ñëpp ñu dajale addiyee maam Cheikh Ibrahima Fall. mi nga xamne moy borom jotay bi tay ah moy borom jotay bi ndax ndax mom loolu nak eh, xamna ne seigne Cheikh Ndiaye xaside mom leer na kenn du ko ci jitu mom <laughs> waaw ndax mom mom ñew na moo indi café gii bayiko ba géejawaay way nak xamna general Omar sekki tam mi ngi may setan mom xamna ne kenn du ko ci jitu waye numéro bi mi ngi ni 77 650 98 46 mi ngi ni ñu afficher ci ñi deglu rajo bi ndax seigne Moustapha Dia defe mi ngi ci kaw mom tam mi ngi koy def direct ci rajo bi. sëñ Modou Fall ngi bëgg lool maa ngi gis mu yónnee message sëñ Modou Fall ma nga ca rajo ba ca Touba Lam Fall FM ba ca Mbacké moom itamit ma ngi koy jàllale ñëpp a ngi topp jotaay bi ci rajo bi ci télévision bi ci Facebook bi ci YouTube bi yëpp numéro bi dama koy fàttali 77 650 98 46 am na mboolem jumtuwaay yëpp nga xam ne des na faa jaarale addiye mu ñëw ci sunu bàyyi mbay ngiraan dama bëgg nag fii ak jotaay bi. mu mu am lu takk lu mu yóbbaale njëriñ loolu moom loolu moom lu ci waay def nag Cheikh Ibra Fall ci boppam nga ko defal waaw su ko defee loolu moom ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy fàttali dama bëgg nag bu kenn nag jërul kenn di woote moom nañ tàbbale addiyee ji rek su su su noppee ci jotaay bi xam ngeen waxtu muy noppi fii ci kanam tuuti rek su ko defee ngeen mën a daal di commencé woote saafonteeg moom waaye na addiyee ji tàbbi waaw moom moom moom loo ay am rek fi ne nii ci sa waxtu wi nii tàbbalal rek su ko defee mu daal di tàbbi te xam ne Cheikh Ibrahima nga nga ko defal ndax lii mu ñu indil tey kat nit a ngi gëstu daj loo ci àddina te mënu koo xam waaye Baye Mbaye yàlla na fi sa borom yàggal. dafa am loo xam ne nag dama ne woon bonus laa koy def. xam naa foofu moom boo fa tàbbee rek su ko defee dinañ daal mën a tëj bu la neexee sax li des ci jotaay bi. ndax xam naa Baye Mbaye sonn na waaye gis nga waaye nag noo ngi sant bu baax. Euh, loolu sax kilifaa moo ko moo moon ne Baye Mbaye bu ñëwee faw nga nga laaj ko ko. maanaam euh, maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi muridina dañu gis saa boo tuddee baatub laa ilaha illallah ndax xam nga fooñ ñu jàng xasida nañ nañ yëkkati turu yàlla wi sikkar mm-hmm. mm-hmm. waaye saa buñ tuddee baatub laa ilaha illallah rek na ko faal yow mm-hmm. loolu nag la la lañu ñu wax ne kenn doyuñu ci pour sëñ Mbay Ngiraan waa loolu Euh, loolu sëñ Moussa Ka mhm. am na sunu daara kër sëñ Mor Mbaye Cissé ñetti at. Mhm. ak ñetti weer ak ñetti fan. sëñ Moussa sëñ Moussa Ka am na kër sëñ Mor Mbaye Cissé. ci njaarim njaarim ñetti at ak ñetti weer ak ñetti fan. Hmm? te léppam man mii la ko sëñ Mor féetale woon. boobu sëñ Mbaye boobu sëñ Mor a ngi fi. waaw waaw. ñetti at ak ñetti weer ak ñetti fan. Hmm. am na ko ci sëñ Mor Mbay Siise sëñ Mor la fi fekk si booba dafa xawoon a wéré mhm. bi mu ñëwee mhm. téere yi mu yor am ci loo xay mbindum sëñ Tuubaa la hmm? waaw mu di ko woon sëñ moor mhm. loolu moom maa fekkee sëñ Mor di ubbi kayit yi téere sëñ Mor téere euh, sëñ Musaa Ka yi sëñ Tuubaa bind ci loxoom ba mu yàgg sëñ moor wax sëñ Musaa ne ko mbind mi de am na lu ma wax mbindum sëñ Tuubaa mii am na lu ma wax ci sa tawat ji sëñ Moussa ne ko loola lu mu mu ne ma mbind mi nee na ma da nga wér ba am juróom-ñetti at yoo xëye dara du la dal mbind mee ma ko wax de sëñ Moussa ka ne ko ah man de eh, eh, eh, Tuubaa laa gise gisee malakul wuti ma ne naa daw ñëw njaareem yi nga xay wel yu màggat la ngir làqatu fi <laughs> sëñ Moussa Ka moomu nag dafa am benn bés. <laughs> man mi maa ko daan yóbbu ci docteur Sidi Gissé. ci bu njaareem bu njaareem sama xel dem na Sidi Gissé Diop xam naa mu lañ ko dippe moom lañ ko tuddee tubaarkàlla Cheikh ko ko tuddee <laughs> waaw Baye Cheikh Diop waaw loolu maam Samba Diop Ndar sëñ Sidi Diop ñu ngi koy siyaar bu baax a baax jàmbaar la loolu waaw bàyyim kay moom moom eh, te te te loolu hmm? ñooñu kay ni ma ko xamee sax yéeme na ah ëpp na waaw. ma doon waxate docteur Sidi Guissé nga ko daa yóbbu. waaw moom maa ko tëjaan yóbbu ci docteur Sidi Guissé mu di ko faj moo tax. Mhm. am na xasida goom fa defal sëñ Basiiru def na ca tudd na ci sëñ Moor tudd ci si docteur mhm. Sidi Guissé. Mhm. waaw. waaw. naan te te te may docteur bi ma faj nu mbokk wér. mu xàjjal nu awtoor fii na Saara gërëm naa ko gisee ak Demba Gañ bàyyi baag rakkam nu ñu wotee te gañ. ci barkib Serigne Touba te seen pay mu yokkaat ko. est-ce que loolu ca xasida googa la koy def. ca lay wax te ñaanal sëñ ma sëriñ ma Mar Mbay Siise. Mhm. ba mu fa wax kulluhum ci barkib Serigne Touba wa doomam mi fas naa ko. Mhm. ñeneen fukki yaasin ak ñeneen fukki matla bu shifa in la may ñaanal boo muy wér gërëm naa ko. Mhm. gërëm naa ko jébbal naa ko saatéer yëpp tey ca lasraar ya ak tariyaaxe ak ñaan yi ful naa ko ko fi ñaan lu ak wér. mbaa alal mbaate ak juboo ñëwal Cheikh ma Mbay Siise ñaanal la gëm naa ko. waaw <laughs> xasida googu sëñ Basiiru la ko doon defal. Eh, ca daara ja ca daara fa la taalife xasida ak soxna Faati Ja moom sëñ waa daayira yi yi dëkk Kaolack dañ daan ñëw di siyaare soxna Faati Ja mhm. foofu ci këram googu ci njaareem mhm. jamono yi sëñ Moussa Ka ma nga fa ci la defe xasida ak soxna Faati Ja googu yi sëñ Moussa nag benn bés muy génn ne day doxantu ba dem dëkk ba mhm. bi mu agsee ba ci buntu daara ji fekk mag ñi toog mu dal di àgg suuf foofu di waxtaan di sëñ Tuuba ba far bañ ba ñuy nodd tisbaar te dane woon day xëy dem dëkk ba waaye sëñ Moussa Ka mu xas ba toog di waxtaan ci sëñ Touba moo gën a neex wayam yii hmm. ndax eh, jëmm ji day yëngatu muy misaal nu ne mu di ko def nu ne nu ne ah, yaram wépp di yëngatu waaw mm-hmm. nga xëy dootu nekk ci lu xam mm-hmm. waaw ca la waxee ni fii ci njaareem jii de mm-hmm. la la sëñ Touba waxee nu ne keroog ba yàlla bindee ruu yi def leen mel ne angarab gerte mu tiim leen muy bésab ëstu bi rabbikum xaaloo balee sëñ Touba ni fekkee ko hmm? fekkewuma ko nee na sëñ Modou Awa njaay moo tontu keroog sëñ Touba sëñ Modou Awa Ndiaye mooy wëlli woowu nga xam ne. njaareem lañ ko denc. mbëri sëñ Modou Awa bu mbëri. menn waaw. waaw sëñ Modou Awa Ndiaye moom përi. bàyyi bi Ibra Ndiaye njuuma. waaw. <laughs> <laughs> maam bi Fallou Ndiaye. waaw sëñ Fallou. Hmm? <laughs> waaw waaw. ku doy waar la woon. Mm-hmm. wàllu kaamil woon sëñ Mor nee na ma loo ma si jox sëñ Modou Awa boo ne ko am bu tàllalee loxoom loxoom ak si fi yow. sëñ Tuubaa mas na koy jàngaloo alxuraan ay kaamil di ko ko taare jàngaloo sëñ bi da ko daan eh, eh, jàngaloo limub kaamil bés mu jàngaloo ko ab lim ba yàgg sëñ sëñ Tuubaa geesu ko ne ko mëdu awa ndax àggal nga mu ne ko àggal naa kay sëñ bi toogaat ba mu yàgg mu ne ko mëdu awa àggal nga mu ne ko àggal naa kay ñetteel ba mu ne ko mëdu awa àggal nga mu ne ko mbàkke àggal naa bi may àggal maa ngi ko àggalee allu alluy ma foos alluy ma foos laa àggalee kaamil yi ma doon jàngaloo loolu kenn ñu mel ko wax sëñ Tuubaa ndax <laughs> sëñ mu daawa sëñ tubaa gaayam yi ñoom rek a ko attan bu sëñ tubaa ñëwutoon duñu amub sëriñ hmm? déedéet Cheikh Ibra Fall mii ku mën a doon ab sëñ tubaa kenn amut waxoon na sëñ al sëñ sëñ sëñ Maxtaar Touré hmm. sëñ sëñ Cheikh Ibra Fall waxoon na ko ne hmm. euh, sa kër maam la ma léegi bii dale muy sëñ mu mutu fa mbombe Touré waaw Maxtaar Touré mu sëñ Abdou Karim Touré Abdou Karim Touré waaw sëñ Abdou Karim Touré la Cheikh Ibrahima ne ko Abdou Karim léegi bi sa kër am la ma dalee booba nag damay julli mhm. waaye booba su may su may julli su ma kàbbaree ne allahu akbar ruuxi awliya yëpp suñ borom da koy jël ci sama jal ci sama kanam ruuxi wàllu yëpp yàlla da koy jal ci sama kanam mm. waaw sëñ Moussa nag di waxtaan ak ba yàgg mu ne fii la sëñ Tuubaa waxe woon ne fekke fekke wu ma ba sëñ ba suñ borom di wax ruuyi naam bisub alastu bi rabbikum xaadoo sëñ Modou Awa Ndiaye ne ko moom Mbàkke boobu foo nekkoon. mu ne ko boobu maa ngi ci géej goo xaye suñ borom moo ma fa yebal ma di ko wattu am naa fa junni at ñu door a tën aadama. ci. ne ba ma fa amee junni at nag suñ borom woote. Eh, sun borom joxe ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xaye ak ruuxam moo jëkk ne balee. moo jëkk wuyu. Mhm. ne ko tànnal sa ñoñ ci ruu yi. Mhm. ne yonent bi tànn aw xeetam. bam mu tànneew xeetam yu woma mom moom yonent bi salaay salaam ne ma sun borom joxe na ndigal ne ko ne tànn ñooñam tan na ba nopi ñewal tan señ tuba ne bama mu ñëwee yonent bi salaay salaam dafa woon na ne damay dem ci ca des ci jël ba tan ci ma ñëw ci lu yonent bi tànnoon ci la tanat ci moo motax mourid mel nonu waye geej gi nak bo fa señ tuba di joggé Cheikh Ibra Fall lako lako denk Cheikh señ tuba yi di wa Cheikh Ibra ne ko nga ñëw tan sa ñooñ mm-hmm. Cheikh Ibra su dawee ba fële mu geesuwaat géej gi dawaat si ci géej gi di baagante diggante bi ba yàgg mu delsiwaat sukku ñaari bëti woomam jël gémmiñam dëpp ci bu géej gi di ko muuc ba géej gi jeex tàkk mu door a dem wuy ji tànn ñoñam <laughs> géej googee mu muuc woon nag moo doon géejug laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah moo tax bu ñu ne laa ilaaha laa dara mënu caa tege lu dul faal loo ca teg lu dul faal rek du mën a jub ndax moo naan géejug laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah sallallaahu alayhi wa sallam moo tax sëñ Mor ba Cissé sama sang ba noon na xam ngeen Baye Fall mooy kan nu ko am bëgg nañ xam ne Cissé mu ne mooy ku ba noppi sëñ Mor ne Baye Fall mooy ku yàlla néggal ba ñu ma ne ko Baye Mbàkke nag mooy mu ne mu ne koy ku nar a yàlla jéggal ku yàlla nar a jéggal mm-hmm. mooy Baye Mbàkke Baye faal nag mooy ku yàlla jéggal ba noppi ku yàlla jéggalul ba noppi doo mën a ba doon Baye Fall mm-hmm. waaw sëñ tuan nag sëñ Mor nag gëmoon na Cheikh Ibra gëm goo xam ne mhm. ku say bët ma sa metti mhm. Cheikh Ibra lay wax juróom-ñaari yoon taf li ko ci say bët say so fu soo fa jógee dootoo jàmbat ay bët juróom-ñaari Cheikh Ibra juróom-ñaari Cheikh Ibra lay wax Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall bu ñaari mu ci ne Cheikh Ibra gis Bamba cey bëtub Cheikh Ibra rek gis Bamba Dong moo tax nag turam bi mom mom lay faje loolu nak ak gëm ko man tax waaw waaw ah, ndax gëm li def rek di def ñi daan yéeg ciw sàkket ak di dox ak ñu daan naan ndox muy bax ak di ko sangoog lépp gëm la te du leen wàññi dara ci ngëm waaw gëm nag mooy mbir mi lii ay escale nag la liimaan yi dañuy gëmuñ yi dañuy rawante ay escale la sëñ Tuubaa waxoon na sëñ ma dem jataay bu sëñ ma dem fekk na ko ne mhm. eh, ku ma def ku ma jàppee mu yàlla ku ma mhm. jàppe yàlla dëgg te mu dëggu ci sa xol mhm. bu saa taxee ne yàlla lay def jaamam ba mu gërëm ma def na la ku ma jàppee ab yonant mu dugg ci sa bu saa taxawee nab yonant di def saa baam ba mu gërëm ma def na la ma jàppee wàllu yi mu dugg ci sa bu saa taxawee ne wàllu yi def taalibe ba mu gërëm ma def na la kon gëm yi foofu la ne foofu la ñuy rawantee foo ko teg rek mu teg la fa moo tax Cheikh Ibrahima am ci lu ci kenn moo tax mu am ci lu ci kenn amul waaw hmm. eh, sëñ Tuubaa waxoon na Cheikh Issa Dieng ne ko Issa mu ne ko Mbacke mu ne ko mbaa jigéen ñu ñu wax gër mi du ngeen ci denc hmm. gër mi Mm-hmm. lu ko ah déedéet diggante guy bu ne ko bu ci denc mukk de ku ci denc de xawit ja ak dilli ja benn lay doon ku dul Ibra Faal xawit ja ak benn lay doon mm-hmm. ku dul Ibra Faal Ibra sànni naa ko foo xam ne su fa xattar bi ko woon jëm si suuf ba addunay tukki du agsi ci suuf cey foofu cey foofa mbay kooka ah <laughs> kooka kooka kooka doy na waar kooka doy na waar kooka kenn la fa ko sànni ba fa xayu ko woon ba ëllëg yomal xiyam du du du du du du laal suuf du laal mm. soow ci mm. moom kenn la Cheikh Ibra kenn la Baye mbay noo noo ngi sant bu baax noo ngi fàttaliwaat numéro bi 77 650 98 46 da damaa bëgg daal li ma wax léegi rek li may def ni moom xam naa ne murid yëpp lañ ko defal euh, ñëpp amoon nañ yéene kenn ku ci nekk départ dafa nga nekk ñëw fekk si Baye Mbaye fii ci barab bi jox ko addi maam Cheikh Ibrahima Fall ak tey lim ñu indi ci taarix <coughs> moo bëggoon nag Euh, jumtuwaay yooyu nga xam ne ndaw yu sawar la te bari sutura mën nañ ko faa jaarale su ko defee euh, addi lu waaye am rek nga daal di ko fay tàbbal ñu def ko addi maam Cheikh Ibrahima Fall ak ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Khadim ak li ñu bàyyi mbay indil tey ci taarix di santaat bu baax a baax nag euh, bàyyi mbay xam naa ne moom dafa mel ne moom ni ko nit xam naa ne gars yi daal doyaluñ ndax yaakaar naa ne fi ne li may jot ci message ñuy sant ak ñuy bëgg ak gërëm bëri nañ trop waa daayira Jazbul Murid sëñ Modou faal moom sëñ Amdi Yaasin mu ngi lay nuyu di la ziar bu baax mm-hmm. léegi de mi ngi woote laataa jotaay bi di la topp nee na ko lay bàyyi xel la nag mm-hmm. ku lay bëggale itam te mi ngi lay ñaanal bu baax sama borom dëbbu la kàttan mm-hmm. ak wér bu baax a baax a baax ba nga yàgg fi lool te wér ndax murit yëpp lay safoo ñoom ay jàmbaar lañ lool daara jooju nga dégg ca Baye Fall nga kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo koy taxawal ci ndigalal ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ mooy Serigne Amdi Fall Modou Mbène gannaaw bi la ko sëñ Cheikh jëmm joxe woon ndigal li daara jooju ma ngay jël ay donga yu bari ña ngay jàngale alxuraan foofu ci daara ji hmm. euh, ña nga fa am projet yu bari tam ñu fanaal naal daayira jës bu murit ñu ngi leen di ziar bu baax leen jaajëfal di ñaan yàlla euh, ñu yeggale euh, di di di bu baax a baax itam ku ñuy wax ma Masamba moom itam jàmbaar la lool mi ngi lay topp fi ne nii muy débitéeru Mbasa fii ci Fadia débitéeru waa kër Serigne Saliou jàmbaar lañ lool ñoom it xam naa barab la boo xam ne moom mucc na ayib daal yàlla na sama borom doolee taxaw bu baax a baax Euh, Serigne Cheikh Ndiaye xasida maa ngi koy tudd léegi moom fii la ne ci barab bi. Mm-hmm. Euh, yor émission firi gént. waaye ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall la ndax xuru Mbàkke la Morito. Mm-hmm. sëñ Abdou Aziz Fall moom sëñ Morta la. moom moo ko defar lépp nee na ma ngi fàtt daana fàttaliku nga fa daa ñëw ci moom. Mm-hmm. Euh, moom nag xéewal yi gis nga kafe geeg yëpp moo ko indi ndeysaan di di di di safoo sa jëmm ji lool. di di di jàmbaar lool itam. xam naa di santaat bu baax ndax li nga fi indi tey fi ne bëggoon nañ sax dugg lu mel ne côté Nioro. ndax foofu it mel na ni boo ko toppoon tuuti da fa da fa daj dara waaw <laughs> ndax ndax mel na ni màbba joxu ba moom am na am na taarix am na taarix tam bu ah, waaw boo xam ne boo xam ne ndax ñoora dafa surut poroxaan màbba joxu kay maami sëñ Cheikh Tidiane si la ah waaw est-ce <laughs> est-ce <laughs> kon de kon de moom boo léegi dañuy ñëw moom tam ci taarix. Eh, waaw waaw su ko defee indi ci lu yaatoo yaatu. dinañ ci ñëw. waaw dinañ ci ñëw yeneen i jotaay. ma <laughs> ba joxu kay. Hmm. ah waaw mbokkum ñëpp la. mbokkum ñëpp ma ngoog. Eh, ndax maa ngi dégg ci taarix ba na ko Baye Cheikh Ndaw daa waxee jay la ja awo ba Anta Sall Fatmata Sow dégg naa dégg naa nga di tudd léegi Fatmata ma daaru ñangi la léegi kon eh, fi ngay fi ñuy fi ñuy war a tëjee waaw daa mel ñu ngi yegg si ci fi nañ ci maam Cheikh Ibra këram waaw wax tuuti ci këram ni mu woon rek mm-hmm. ma moo daan fees. waaw ma dem ba seen moo daa togg. waaw Abdoulaye Dia moo daa wulli. Mhm. Ousseynou Niang moo daa tibbaate. Cheikh Diop café moo daa xelli café. Mhm. Abdoulaye Dramé Baye Dame Dramé ak Cheikh Tall Galo ñoo daa dëndale ñam yi. Mhm. Cheikh Gan magi umi Kane moo yoroon ganaar yi. Baye Ibrahima Kane Baye Cheikh Kane moo yoroon Cheikh Ibra soxna Faati Fall Wad mooy ndey sëñ Fallou Fall. ak soxna Roqiya Fall ak sëñ Abdoulaye Fall Ndar. Euh, mu fabaat soxna Faat Fall Wad jox ko Cheikh Issa jenn mu am fa soxna Bousso. jenn ak soxna Amina Jenn mhm. soxna bu euh, soxna Ummi Mbàkke moom mhm. borom Touba. Mhm. nekkoon na kër Cheikh Ibra Cheikh Ibra tudde na ko doom danaa fi ñëw waaw soxna wuli mbay so wuli mata mbay mhm. mooy ndeyu ummi kaltoom mhm. mi nga xam ne moom la Cheikh Ibra joxoon Serigne Maguey Jama mhm. ak umul xëyri soxna Faat Diop Sayar mooy ndeyu sëñ Omar Aliou Fall Mbawor ak sëñ Omar Fall ma nga des jaara soxna Assou Sill mooy ndeyu sëñ Muudu Sa Fall ak Serif Assane Fall borom Kawsara Fall soxna Mbenda Fall mooy ndeyu sëñ Muudu Fall Mbenda soxna Lalla Fall mooy doomi la mel Samba Lawbe Fall Cheikh Ibra Fall yoroon na ko Cheikh Ibra yoroon na soxna Gañ Siri Fall mooy yaayi Abdou Gañ la bàyyam mooy bàyyam soxna Bambi Diop doomi Lat Dior Diop Cheikh Ibra yoroon na ko mhm. yoroon na soxna Saasi Mbóoj Cheikh Ibra Fall yor na ko ab diir door koo jox sëriñ Saaliwu Fall rakam mhm. mooy ndey sëñ Fallu Ndaam Fall moom sëñ Saaliwu Fall mhm. soxna Xadi Lo mooy wéjuru maam Sooda Fall moom la Cheikh joxoon sëriñ Baara Jenn mooy wéjuru sëñ Ngañ jenn ak maam Oumy jenn soxna Awa Jaxate Diop mooy ndey sëñ Basiru Fall Cheikh Ibra dellu fabaat soxna Awa Jaxate Diop jox ko maam Saliou Fall mooy ndey sëñ Assane Fall ca Daaru Xafoor ak maam Say Fall soxna Fall Mbaar mooy ndey soxna Astu Fall moom la Cheikh Ibra joxoon sëriñ Basiru Mbakke mooy ndey Cheikh Astu Fall moom sëriñ Basiru Mbakke soxna Xari Diop mooy ndey soxna Bousso Fall ak sëriñ Mbakke Fall soxna Bousso la Cheikh Ibra joxoon Baye Ibrahima Mbay magi sëñ Yaara Mbay ak Idrissa Fall ak maam Say Fall soxna Faat Silla yaa xam mooy ndey sëñ Muudu Fall Faati Silla soxna Xari Diop mooy ndeyu soxna Faati Fall sëriñ Mor Ndiaye jullit la ko sëriñ bi joxoon soxna Debbo Sarr mooy ndeyu sëriñ Abdou Sakoor Fall Angunda Fall soxna Astu Jaañ mooy ndeyu soxna Xadi Fall Cheikh soxna Ndiaye Njare mooy ndeyu soxna mooy ndeyu soxna Picc Fall soxna Ummi Kan mooy ndeyu soxna Penda Fall euh, soxna Faati Gay mooy Gay soxna Faat Tambéedu mooy ndeyu sëriñ Mbàkke Fall mooy ndeyu soxna Ja moom sëriñ Saaliwu Fall soxna Faat Fall Ousmane mooy ummi Fall soxna Fatim Xari mooy ndey Mariam Fall ak sëriñ Abdou Fatim Xari soxna Xaar Fall mooy ndey soxna Jabb Fall ak sëriñ Amsatu Fall ak soxna Wuli Fall ak sëriñ Abdou Xaar soxna Penda Sarr ndey Abdou Penda ak soxna Sëri soxna Xadi Lo mooy ndey soxna Mhm. soxna Mariama Diouf mooy ndeyi soxna Lalla Fall mhm. eh, soxna màggat Abdou nekkoon na kër Cheikh Ibra mhm. ak soxna Bousso Diop soxna Sooda Ka nekkoon na kër Sëñ Abdou kër Cheikh Ibra Fall ak soxna so soxna Coro Dieye soxna Faati Ndiaye Balla nekkoon na fa ak soxna Nguyene Jaw ak soxna Faati Silla Madu sox soxna Seyna bu Guèye ak soxna Lalla Fall soxna Koddu Baaxe soxna Jëng soxna Bambi Diop soxna Maguette Dieng Kambel soxna Jas Mbeng soxna Khady Mbay ñii ñëpp nekkoon nañ ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall soldat si nga xam ne Cheikh Ibrahima laajoon nañ ko Serigne Touba. Mhm. ci 1918. Mhm. Euh, le 7 avril 1918. waaw la Cheikh Ibrahima joxe téeméer ak juróom fukk. Mhm. di gaawu dibéer altine Serigne Cheikh Fall Baye góor ga di addina ci Saayir. waaw 1918. ci la maam Seyna bu Njaay dem dem Touba. ak soxna Astu Sill. gannaaw ga juróom fukk solu na ñi ca soldaar sa la ñu bokk. Serigne Bassirou Fall. Serigne Ablaye Fall Ndar. Serigne Yaram Mbay. Serigne Cheikh Tall Galo. Serigne Modou Fatma. Serigne Moussa Fall Mbaar. Baye Isma Joxaane. Baye Madou Gay Tall. Baye Ibrahima Thiam. Serigne Ndiaye Ndiaye Baye. Abdourahmane Sylla Baye ma jaañ jaañ Baye faal Fall Baye a Taw Serigne Mor Jooja Fall Baye Moustapha Penn mënu maa xam ñëpp waaye ñii ci lañ bokk ak sëñ mat sekk sarsa li anna baabullahi mudaqirun bil xulubi almuminin Cheikh Ibra Fall nee na ci ci ci jësbul murid nee na li anna baabullahi mudaqiru xulubil muminina nee na buntab yàlla mi ngi ci xoli jullit ñi jullit ñi kon fa isaa faraxta xulubahum fataha laka baabu rahmati nee na saa yoo bégloo ab jullit ubbi nga buntab yàlla muy buntab yërmande fa isaa faraxta xulubahum xaraxa xalbuka xalan li qawli taala inna la siina fatanul muminina wal muminat su ma lam yatubu fa dum asaabu jaanam wóoruma asaabul areex bi saalikam wajabal xidmatu Cheikh Ibra Faye nee na ci loolu la wari ci nun nu liggéey wal baslu ak joxe li sayxi ñeel sëriñ si maa ithaamil miskin ànd ak di lexal miskin yi walooy faayi ak way doy di maal xurabaay ak jegeñaari fa kun saa rahmatin fil mawti Cheikh Ibra Faal nee na nan xemem dee wa islaaha daari laaxirati ak ak yëwénal suñ kërug àlaaxira li ann ku la baytin wa xariyatin laa budda laxoo min islaahi xabla sukra nee na kër gu ne ak néeg bu ne faaw nga defar ko door caa dëkk war xam bi maa hindallaahi nee nañu xemmam la nekk fa yàlla mhm. wa rasuuli ak ab yonantam wa saalika te loolee mhm. laa taraahu laa ko gis ko ilaa baxdal mawti naree du gannaaw buñ faatoo rek walaa tan sa daaraka nee na bu kenn fàtte sa kër inna siitahoo soo fàttee sa këru àlaxira wajjatahoo ramiman soo ëllëgee doo fa fekk lu dul beeñ hindi du xoolika ci sa tab bi fii haa ci moom fa sari naara nee nan wattu na sawara lianaa yuf si du ref ndax sawara kat day yàq tono wa amaal birrul waali day ni nee na topp sa ñaari wayjur waajibun nee na waajib la lu war la bil ci alquran wa sunnati ak sunna wala ijmaahi ak dajeeg sëriñ sëpp wa huwa loolee nag an tuxaasirahuma mooy nga topp leen ci bil maxruufi ci lu yàlla digle wala tuxaasir huma waaye bu len top rek fil muharram ci lu aram wala makruuhi wala luñ sip warhum huma da ngay yërëm sa ñaari wayjur warhu lahuma de len ñaanal ñom ñaar bi xayri aw yiw in kana muslimina nem ay julli lañ wakrim huma te nga teral leen mastataxta sa kem kattan wa kulluhuma mislu habdin Cheikh ibrahim Fall neena na nga ab jam ci say wayjur li an la taala amara bil ihtiraami ndax yàlla mo digle nga teral say wayjur lahuma ñom ñaar wa rahmatan di nga yërëm len wa xaala yàlla wax na de wa asdaqul qaa'iliina te ay waxam nag moo gën a dëgg waxe ku dul moom jàlla waxalaa màgg na te ko benn xul rabbi irhamhuma kama rabbayani saxiran moo wax ne na nga leen yërëm nañ la yërene woon ba ngay ndaw wala xaw yi amaro ala taxburu ila iyahu wildaani ihsaanan moom wax moom suñ borom ne boo leen jaamu ku dul men waaye su ngeen jógee nag la gën a rafet ngeen jëm ko ci seeni waajur falaa taqul lahuma uffin bul wax sa waajur lu gën a néew fépp suuf wala tanharhuma bul gëdd sa wayjur waxul lahuma xawlan kariman na nga wax ak say wayjur wax ju tedd waxsin ilayhima na nga rafetal jëm ci moom fii kulli hiinin ci bépp waxtu wa fi kulli mawlin ak ci bépp barab wala tukrimhuma Cheikh Ibra Fall nee na bul teral sa ñaari wayjur bay na si ci nit ñi wa tarkahuma fi khalaihima te so wéetee ak ñom di len teddadil neena bul ko def de xalayka birti halin li ci seex seex ibra nee na ngi lay deg nga laxas ngir jëmi sëriñ bi wa si tamasukin bi ablil matinin nga japp ci bur gu dëgën ila siyaati mustaqimin te yon moy wonu jubwa in leen taqi an darikum lillahi su ngeen gennul seen kër sakku ji yalla yit sa fa ila quburikum da ngeen ma sa genn seeni kër jëm ci bammel فانصروا قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالخيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون شيخ ابن فال نينا هل لكم باختيار الشيخ alaykum ne maa ngi leen di digal ngeen roy sëriñ si in law yaraw na xayral xalqi gannaaw gisu leen yonante bi sallallahu alayhi wa sallam li xawli taala wa rafaxnaa baadum ala baadin wa xawluhu falal naa baadum ala bahlin li yasfakum an zunubikum wa antum isaadam tuxrijoo lillahi xaritu linsaay su ngeen génnul wuti yàlla da ngeen génn wuti jigéen isaadam tuxrijoo lay xaritum lilli habin Cheikh Ibra Fall nee na su ngeen génnut wuti yàlla da ngeen génn jëm ci mpo isaa lam tuxrijoo lillaahi xarajtum min limalin su ngeen génnul wuti yàlla da ngeen génn wuti alal isaa lam tuxrijoo lillaahi xarajtu li juhin wa xuryaanin wa kha'itin wa bawlin la yahkumu hiyal li annahu mustadrijum neena su ngeen génnul wuti yàlla da ngeen génn ngir xiif beug lu ngeen lek wala ngir rafle beug lu ngeen sango wala ngeen beug dem douce wala ngeen beug tour ndokh tay neena njabot gi mu len galankor ndax ab jay rek la walaa idraaju isaalam turidu rahmaan su fekkee ne ànd ngaa moom jëm ci yàlla nag dootu doon ab jawe wa huwa sawfa yurikumu ilaykum ina manaxakum iyaalu wal jiraan Cheikh Ibra faal nee na su fekkee nag ne eh, njaboot gi ak dëkkandoo eh, yi gàllankoor luñ la ci sa jëm yàlla loolu bu ko defee du du du ab jay fa sawfa yaatikum walam tajidu hindakum man yaqiisukum nee na day danga nga da nga àgg ci barab yoo xam ne da nga màggat dee dana ñëw bil mawti wa xaman ak ngumba wal marali ak tawat wal xariji ak màggal wa màggat wa xayri salika ak yudul loolu fa ah fa ahra man yaqisukum min naari ne rawatina ana kan moo la mën a dox sa diggante ak sawara wasala ilayha ak tartaram ya wala yasfahukum indahu ahadun illa bi isni kenn du la ramu ëllëg ndareetu ci ndigalam rek su ma ay sukun te anni sonal xiyaale wal jiiraan su ngeen wéttalikoo njaboot gi ak dëkkandoo yi fa saw fa tuuxi soona xal seen nga wéen a wéet bi sunoo bi kum ak seen i bàkkaar walam taraw saafihan te du ngeen gis kenn ku leen rammu li an na naasa yaamurukum bil maxsiyati ndax nit ñi dañ leen digal li ci ak mooy yàlla wala yaamurunakum bi taxatillahi te duñ la digal mukk ak topp yàlla wa yaamurunakum bi tarki rabbina nit ñi Seex Ibra nee na nit ñi dañ lay digal nga bàyyi yàlla sa borom wala yaamurunakum bi tarki lahi bi te duñ la tere mukk am po wa yaamuruunakum bil buxli ne dañ lay digal ak nay wala yaamurukum bi nasiyatin te duñ la digal mukk ak laabire yaamuruunakum bi ihtikaaril maali ilaa xarin dañ lay digal nga takk sa alal ji denc denc ko jëme xarab jëme ëllëg isaa maadoo waari salmaara soo faatoo ñu dondu alal ja wa sawjaate ak soxna ya wa yadiima law daadi sa doom di ay jirim wantan dëwnoo nadaamatan xasimatan ngay réccu ci biir bàmmel ya réccu gu mag wal mu yeen fakum saalika te loola dootu a jëriñ dara wala yamarukum bi itfaa'il maali duñ leen digal ngeen sàkk seen alal ngeen sànk seen alal ci bunt buntab yàlla wala tax fulool maala bi baabi dunya ay Cheikh Ibra Fall nee na bu leen fab seen alal yëpp def ko ci bunti àddina yi wa baabul aaxirati maftuuhun te buntu àllaaxira di buntu bu ubbiku boo xay duñ ko ummuk lankum ñeel leen eh, ngeen di ci te difu leen ci dara lu dul lu ngeen am def ko ci àddina wala tusaddiq nisaa ad dunya bu leen can jigéen ñi addina ñi watan saani sa aljannati ngeen fàttee can jigéen ñi àjjana ya wala def nu quwwatakum ilaa bi xidmati rabbikum bu leen jeexal seen doole ci lu liggéeyal yàlla seen borom ayuhal aaxiru jërëjëf daa mel ne fi leen nii waa ne nañ ci sax lu bare bare bare bëri moom kay xanaa Baye Mbaye da dañuy ñaanal rek ñu waajalaat daa mel ne daal <laughs> fi nga nekkoon nag moom kéemaan la moom waaye waaye waaye daal ñëpp a ngi noos waaye Baye Mbaye dañuy dañuy ñaanal su ko defee dañuy dem nag dellusiwaat ndax xam naa ne wóor na ma ne fi ñu toll nii moom fi ne nii moom xam naa Baye Mbaye moom fi ne fi mu ko tegoon nii ko ko toppoon xam naa ne dañuy dem ba suba ci fajar gi rek <laughs> waaye waay waaye waaye ñaanal lu baax a baax rek jotaay bi daal yàlla nañ ci daje ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall. mu mu ngoog taflil nu loolu. ah dolli ci dara. waaw ba noppi. amiin gaawal loolu kay moom. jërëjëf suñu xol seet na baax <laughs> alhamdulilah alhamdulilah <laughs> waaw defal nu fii daal. loolu kay. waaw loolu nag nag nañ ciy sàkku. alhamdulilah nañ ko ci am rek. tubarkalla. waaw defal nu fi dara. su ko defee nu nu nu fasaaleel mboolem ku ñuy seetaan rek. waaw tey jàkkaarloog noonu. وافتح لنا كل باب كل فاتح امين من لسالهين من الخيرات يا الله امين واسلك بنا نهج رشد واكفنا صلاة فضل لنا الجن والشيطان يا الله مكملا كل ما ننهو ونقصده وعبلنا كل ما نختار يا الله امين ورلنا كل شيء بن وشي ارن ويا سرا ku la siita siir yàlla waaye siran ku la siita siir yàlla waaye siran ku la siita siir yàlla tawi lanaa umranaa sahi lanaa badanan wa am lanaa rusda wa tawfiq la tawfiq tey siir ndimbal ak yërmande fan yi na gudd lool te ànd ku wér wërsëgu yaatu lool te bari te barkeel te njëriñoo ko ci jàmm te suñ borom musal nu ci ndog yàlla bu leen dara dogale barke xaadim rasul barke suñ mor basi saba sak naam sala si naam amin allahumma amin amin jërëjëf soxna soxna Awa ñu ngi koy ziar bu baax a baax taxawaay bi rafet na lool di sant bu baax Sow sama waa ji xam naa xaabaabal nañ waaye yéen moom xam nga ci liggéey bi ngeen bokk di santaat bu baax Madiagne ancien ministre ñu ngi koy ziar Madiagne Khady Dieng di la ziar bu baax te di la jaajëfal di ziar Momar eh, di ziar bu baax sëñ Mbaye Sène mi nga xam ne moom itam ñëw na jotaay bi di jaajëfalaat ñëpp di dem ak sëriñ di leen bàyyi sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu